ñeenteelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi benn bés yéesu ak taalibeem yi jàll dexu galile jëm diiwaanu seresa bi yeesu wàccee ci gaal gi ab nit daw jëm si ci moom nit ki raba ko jàppoon mu ngi dëkkoon ca sëg ya kenn mënu ko woon téye waa jirab jàpp yuuxu ne yeesu doomu yàlla ji loo may fexeel noonu yéesu laaj ko noo tudd mu tontu ko coggal laa tudd ndaxte dañoo bare rab ya ñaan yeesu mu bañ leen a dàq fu sore ñu ñaan ko mu may leen ñu dugg ci ay mbaam xuux yu fa jege woon noonu yéesu dàq leen ñu dem ci mbaam xuux yi lu tolloog ñaari junniy mbaam xuux jóge ci kaw tund wi tàbbi ci dex gi lab bi nit ñi gisee ki rab jàppoon mu wér te ñu dégg li xew ñu ragal nit ñi ne yéesu mu génn seen dëkk beneen yoon ay nit indi nañu ci yéesu keneen ku rab jàpp mënul woon a gis mënul woon a wax bi yéesu dàqee rab wi waa ji di wax di gis nit ñi waaru ñu ne xanaa doomu daawuda ji la yàlla dige léegi ma laaj leen juróom lan la yéesu defal nit ki ay rab jàppoon te dëkkoon ca sëg ya dàq na rab ya ñu dugg ay mbaam xuux mbaam xuux yu tebee ci tund wi daanu ci dex gi lab juróom ci seen xalaat lan la rab yu bon yi bëgg bëgg nañu moom nit ñi jëfandikoo leen ngir sottal coobare seytaane ñaare dañuy feeñu mel ni ñu baax ngir nax nit ñi waaye lu yàgg-yàgg ci lu bon lañu jëm juróom-ñeent ci seen xalaat lu tax rab yi ragaloon yéesu rab yi xamoon nañu kan mooy yéesu xamoon nañu ne yéesu am na dooley sànq leen